abonné daal diisul doo fay dara bësal rek bu ko defee loo ñëwati nga mën ca am jaaxle jeex na. ci ko yore kaay leen ñu dem ci gëm ci baay doo dox di laaj dañ lay teral da lay solole gaa yi tiijaan mos nu yi ma tere konte da ngeen fépp danaaw ba leen tayal ba leen juuyoo gaaya bul sank say deer sama waaji konte du ngeen niil jublu leen pour bu du duulu yéen gaaya tiijaan sax ci julee jàngate wir bul defaatal dara harfu julee jànga ñoo heen gaaya tiijaan ma waaru ma waaru cee ma waaru ndax du ngeen seet dundam ko lépp ne feet mooy seetu tiijaan ci njëlbéen moo doon abil anbiyaa ci mujj mooy abil awliyaa itijaan bi Omar santal yàlla tey sant bàyyi asak baam moo ñu nandal moo ñu janaleeg seetu tijaan ba moo ñu koyel moo ñu jàngal ba ñëpp dañuy yéem ma tey ba ba mën a jërree gaay tijaan waa faasa gaay toog di seen toog ay na maa di kay noon baraama njëkk fay nu di ko jox ahlu soodaan ruxunu la moom laay baaxale bépp jaam kaaga rahmaanu la mooy lii jallati jaam hën gëhë diiga moom laay ga alaahu la mooy doy na waar mooy suñu tibla moo di màggal benn tijaan waxuma dëggan gaañi yëpp seet leen ko te seetantal kon ngeen xam ne paay moo yor nguuti tijaan foo ko tijaan baxru lan waare kat mu lawliyaa kat mu baay moo doon lu tijaan bàkkal baay moo ñu gis bu ko yett ولد الفار باكلن باكلن براما كان عندي كل جيل وانا واجب منكو وانا ويرو لبدان لو يلا نوندي لا نهار تبارك الله برام جمعي باغوني بندم دنيتا نيتو تالال دنيار تبارك هو برام هداية وقنا نيسا دي كونتان مسلم مسلم مانقل نبتني مبرهام تياغ يسرن ويمنان بركتي جان kilifa barahama dañ sakkoon nga tampe ñu baay yàlla gën ci ci baawu tiitaan jullil ci yonent bi julli boo xam ne day wéedelee julli asal moo ñu xamaloon taayiti bu leen da nga ba leen di wedde ci kaasu saw ko lay naan ñun bëgg tiijaan kuusi kuusul na ay kaat na ku ñuy naane leer koom la fay du ba doon waamee kaayu tiijaan sëñ ki siise di lay ñaanal ci baaxu baraxam fan wu gudd wér gi yaram yi gaay tiidaan amina amina yéen gaay yi wax leen na amin yal na yàlla jox ñu lu ñu doy barke amin war la naa ko jàng sama way walee mi xaajoon ci baaxu baraxama barke seyku tiidaan santana baraxama te sant Muhammad Fatou Diouf ñu may yëral damay tuddalee gaay tiidaan yal na yàlla fay leen fa sanaa waajal ci barke seen yal na jox ñu lu ñu doy barke Tijaana barahama barkeel ñu baaxal ñu gudif nañ la ñaan notal ñu noon yi moo baax yow kaw si Tijaan ci fay dugi yow barahama dollil ba tey ñu sëpp ngay dolli ñun bëgg ci naan nañ ci daanaan yi dégg nañ ci xaaraan yi taw na kaay ci sa maam di daaw yëpp ak lu ciy jaam ñu laan a wal lu su kaw teew ci wëwën dee ka for ñu man di tey si kar takk baay soo ko di jaam dam taxa ngaay di di ngoone gaane kee dootu gaan soto waaji baay ba soo def ko ko rabbaat sëriñ Ibra Faal ñi moo topp ci taw baay sëriñ mooy mu maami moo naan jox ñu ñuy naan